Résultat, ci diggante Khalifa Sall ak ki di Ousmane Tanor Dieng Serigne Saliou Samb xam-xamam match jëm ci walu politique japp ni ki di Ousmane Tanor Dieng dafa war mëna fulal ki di Khalifa Sall mi desandi don roi fi ci capitalu Ndakaaru daan ci dikk yeen ci biir xibaar yi toll na ci euh, ñeen fukk ak ben milliard ci suñu copar di copar yo xamanteni ni euh, réewum Japon moko jappalé réewum Sénégal ci gëna katanal li di couverture maladie universelle jëruñ juñ dénk car euh, lii di santé jàpp ni danañ gën a dimbali askan wi ngir bu ñu bëggee faju mu yomb leen daañu ci dikk yéen ci biir xibaar yi euh, lii di équipe Casa am na njiit lu bees di ab maanaam lii di euh, Athanase Tendeng mooy coach bu bees Casa Sport ut fa ki nga fa nekkoon ñu jàpp ni lu ne mel dana gën a tax ba moom di njiit lu bees bi indi ab touche bu bees ci équipe boobee mbokk yi loolu gën a fës ci bopp xibaar yi yaatal gi léegi léegi lay doon ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu doore bi la jotaay xibaar ak réseau bi di Wari boo moytul daañu ko lompoñal fii ëllëg jàpp àllarba ak alxamis ñi ko xamle mooy waa RENAPTA di réseau bi nga xamante ni ñooy ñaawlu doxali ñii di waa réseau ñu jàpp ni daanaka sàmmwantewul li nga xamante ni moom la BCEAO xamle ci réglementation lii di transfert euh, lii di xaalis fii ci réew mi ñu jàpp ni ñuy sàkku ci askanu ñu fexe utali yeneen réseau ndax daañu fexe ba lompoñu li nu ko ëllëg jàpp alxamis Thiès ñu teewlu ci kaddu ki jiite RENAPTA di wuyoo ci turu Serigne Gaye ci micro loise Tina Sagna. ça fait des mois ñu ñuy dégg ñu yuuxu di wax nañ mais autorité yi faale wuñu wuyu moo xam autorité bancaire moo xam autorité étatique kenn bëggula wax ci mbir mi léegi nag toll nañ foo xam ne dañoo tollu ci war a boycotter carrément ngir donner benn exemple ci war yi ndax war yi lu tax ñu tànn ko il faut que nit ñu comprendre dangay gis koo xam day jël logiciel am jox ko banque banque bi di ko exploité nga wëlbati ko di séddu foofu walbati ko demaat ci li nga xam ne moom la banque bi di jox opérateur eh, ki eh, prestateur bi nga taxawaat ci diggante bi ne man maa koy jël léegi doog a sédd opérateur di sàcc ci ñoom 8 pour yemoo ci loolu muy wari interlink moo koy def tuddoon na fi interactive tudd fi interlink KQ Yep, pour mën a pexem càcc la. mercredi bi le 7 ak jeudi le 8 du def wari ci bo mbooleem Sénégal Yep, yëpp ñu ngi wax na population bi ne yàqul dara ci seen activité nañ dem def ko ci yeneen transfert yi fi nekk duñ cité kenn nañ dem foofu ku bu mu leen neex. ñu dem def ko ca waaye wari bi daal nañ ko teg fële ndax buñ ko defee bu ñëw ci sunu point duñ ko fay ñu wax lu ñeel wàllu politique ak élection au conseil des collectivités territoriales xam ngeen ni liste ànd taxaw Dakaaru ñoo gagné ñetti sièges yi fii ci euh, Dakaaru waral ba kii di Serigne Saliou Samba xam-xamam màcc jëm ci wàllu politique jàpp ni kii di Ousmane Tanor Dieng war naa mën a fullaal bu baax a baax kii ci Khalifa Sall ndax wane na ni njàmbaar la ci mbir mi nga xamante ne jëm ci wàllu politique yeneen jàngat mu dikk ceeg ñoom ñu ànd ceeg Codé Ndiaye élection au conseil des collectivités territoriales ak résultat yi nga xamanteni mom mo moo ci urne yi boo moyul dana am ay njeexital ci yenn parti politique yi bu ci melni parti socialiste. dem na ci campagne bi ak loxoy neen ànd ak ñu ko nguur gi diko xex Ousmane Tanor Dieng di ko xeex ci anam yo xam ni mom la lay bëgg limal benn bi moy def nañ lu nekk li ñuy mën ngir jéem koo xoqatal ndax bu bul fàtte ne ci biir campagne bi wala bi ñuy bëgg a woote la dégg commencé di convoqué ñi nga xam ne nii ñu ànd ak euh, Khalifa Sall ñaareel bi mooy li ñuy wax jënd ay nit ku ne xam ne bëri na ay conseils yu bëri woon nañ leen nee nañ leen jox xaalis ñii ne ay xaru tabaski. mu mel ni ci bopp parti socialiste. faw rek ñu nemmeeku fa ab dualité maanaam ñaari kàngam ngir jiite boobu boobule parti. ndam li nga xam ne Khalifa Sall am na ko ci Dakar ndam lu rëy am solo la ndax li mooy fi mu ne nii parti socialiste mooy responsable yi nekk ci kaw ak militant yi ñoom ñëpp leer na leen ne Ousmane Tanor Dieng rek mënatul nekk ci parti bi nag di bootu bu ngi ñoom dese na a leen ne am na ko nekk ci biir parti bi génn gut dàquñu ko muy Khalifa Sall moom ci boppam fi mu il faut ñu xam ne mi ngi fi. nërmelu bi nga xamante ne ni benn Bokk Yaakaar def na ko ci dakaar président Macky Sall ak régime am daal di jàpp au sérieux ambition présidentielle bu Khalifa Sall di maire bu Dakar rawatina lu jëm ci élection présidentielle bu 2019. ñu ngi ci xëccoo ngi ci ngi ci ŋaayoo ñu ngi ci mbii ci ko mballoo ndax Abdoulaye Diouf Sarr moom ku nga xam ne am na ay Eh, nekk biir APR ci biir dëkk bi sax bo demee biir Sénégal comme mel Abdou Latif Coulibaly fu ñu ko fa daané du dëkk seen responsable na xala nga dama tam ci Ziguinchor kon limi muy tekk muy parti bi ak coalition bi am nañ jafé jafé ju rëy kan mo leen ko teg nak moy Khalifa Sall. bu ñu ko ba tay ci bi bile journaliste moom muy xamné né élection bi da fay firndeel rek né coalition taxaw Dakar mi ngi am doole ba léegi ci Dakar loolu nak di firndeel itam né ba tay ji électorat bu Khalifa Sall dara soppeeku ci ci capitale bu Sénégal.

mooy Abdoulaye Diouf Sarr parce que xaarul président pour wàcc sur le terrain ba muy metti bi nga xam ne ne kenn sañul jàmbarloog Abdoulaye wadd ñun dañu ànd ak président Macky Sall jàpp ni moom la muyee la mayo ba gagné élection yi ànd ak moom tey jamono yooyu am na ñoo xam ne ni ñoo doon saaga président ñooñu tey ñi nga xam ne ñoo doon tenir propos yooyu mais ñoo bëgg a taxaw ne ñoom ñoom Macky Sall la ñu gëm mais dañuy wax lu leen neex. gëmuñu Macky Sall tey gëmuñu Macky Sall suba gëmuñu Macky Sall ëlëk cet intérêt dong mo leen taxal top ñun loolu dinañ ko xex jàpp ne tey ñun ñun ak Macky Sall tay ñun ak Macky Sall démb ñun ak Macky Sall ëlëk mais xolal opposition bi ñuy imposer le débat politique et c'est pas normal c'est parce que la communication du gouvernement est très mal gérée kon ñi nga xamné ne ni tey jii ñi nga xamné c'est vrai aujourd'hui ñi nga xamné tay denk nañ leen la communication du gouvernement daanaka c'est comme si xamuñu lu ñu def parce qu'on a, on a fait de très bonnes réalisations, mais il n'y a pas de communication autour maintenant de ces réalisations Les gens, ñu bëgg a laqatu feneen nous taxaw naan nous sommes président président ñu dellusiwaat ci résultats yu tukkee ci euh, élection au conseil des collectivités territoriales ci Ziguinchor nga xam ni parti bu Abdoulaye Baldé di UCS moo jël ndam li am na ci lu tollook téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay xob jamono boobee ñii di coalition pour l'émergence de Ziguinchor am nañ ci lu tollook téeméer ak euh, fukk ak juróom ci ay xob ñoom ñi nga xamante ne ñooy tête de liste bobé coalition wala boo ko parti bu UCS rafetlu ndam li ñu teewlu ci kàddu Ibrahim Diédhiou ci micro Mame Binta waaw dama ne ñu ngi sant yàlla julli ci yàlla bi gërëm bal Balde victoire bi presque victoire am na te am nañ yaakaar ne wax dëgg yàlla lii moom sant yàlla la bu ñu demee ba ñu falu ñu dem ñu installé ñu ñoo xam mission collectif et au conseil di leen xam lu ñu dem donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf

ay kilifa APR ñoo xam ne ñuy ay député ñuy ay ministre ñuy ay directeur généraux nañu liste Abdoulaye Baldé parce que comme ñooñu parce que ñun APR amoon conseil conseil suñu liste xam ne dañuy mouvance présidentielle bi décidé nañu déjà ah mon na am écart bi du doon bëri noonu wala su ñu ñu gagné donc lolu muy lu am solo. li moy li moy li moy li moy démocratie tay da ngay gagné suba da ngay perdre digël bo xamné président Macky Sall moy président coalition bi mom la jox moy que Ziguinchor du ñu def liste. té lolu gis ngeen ñepp ko respect. benen digël bo wax nak moo boo président Macky Sall moom wax ni. que wa APR yi ñepp responsable yëpp nañu dem voter liste. UCS bi man de dégg naa ko fii si campagne leader affaire ñu koy campagne mais man sama bopp ah du président Macky Sall moo ma woo mu wax ma ko du benn responsable du parti moo ma woo mu wax ma ndigal boobu ginnaaw euh, politique ñu wax lu ñeel wallu wér-gu-yaram toll na ci ñeent fukk ak benn milliard ci suñu koppar bu réewum Japon jàppale couverture euh, maladie universelle bu réewum Sénégal ngir gën ko kattanal ginnaaw ba ñu gisee ni am na ay jafe-jafe jëwriñ juñ dénk wàllu wér-gu-yaram di Awa Marie Coll Seck di ko rafetlu jàpp ni ndimbal loolee dina gën a tax ba askan wi gën a jotee ci loolee di couverture maladie universelle te it bu ñu bëggee faju ñu faju ci anam bu mu gën a yomb ñu ànd ceeg kii di Ndeye Fatim ci atum 2026 le Sénégal fasiyene tambalé di fay borom bi ci milliard xaliss bi dina tax am ci couverture maladie universelle bi surtout ci li jëm ci prise en charge gratuite askan gi nga xamné loxo jotul seen gannaaw. ñi nga dañu ci bourse de sécurité familiale moy manam ñi nga xamné yalla dafa def seen ba gouvernement bi di leen dimbalee juróomi junni ñetti weer yu ne président Macky Sall dafa ne ñu dugal leen leen ci mutuel de santé yi te duñu fay dërëm nguur gee leen di gàddu ne nag dañuy ñëw indi leen xaalis boo xam ne ñooñu gën a néew doole ci askan wi danañ leen mën a dugal ci mutuel de santé yi te duñu fay dërëm ñu toll ci deux millions quatre cent mille personnes maanaam ñaari million ak ñeenti téeméeri junni

ñi nga yo booyee fal seen paj bu ñu demee di faju war nañ fa fekk ku leen faj war nañ fa fekk ay jumtuwaay war nañ fa fekk garab moo tax kon ministère ne dañuy liggéey ci lii pour nit ñi seen paj gën a yomb waaye nag dañ ciy yokk

ngir gën a mën a dimbali ndaw ñi ñu ut seen liggéeyu bopp réseau ndaw ñi bi nekk ci francophonie amal na tey ab atelier de formation boo xam ne ñoom ndaw ñooñu ñoo ko tax a jóg li ñu bëgg rek mooy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci dëkku Afrique yi la ñu am xam-xam yoo xam ne dina leen may ñu mën a teg ay projet yu leen di mën a jural njariñ te formation bi nga xam ne ni ay ndaw la ñuy tàggat pour que ñoom it ñu dem tàggat yeneen ndaw té tagat bobu dañ koy def ci walu entrepreneuriat moy ligéyal sa bop té loolu lu am solo la té loolu tax ñu ñëw eh, di wax ni wax naa ko sank eh, bo démé ci dëkk Afrique yi réalité yi dal ben la moy que ñang eh, bi ak ñangal bi xalé yi bu ñu demee ba am seeni diplôme pour ñu dem ci entreprise yi ligéy day day metti lu toll ci ñaar fukk ak juróom ay ndaw yu jóge ci fukki dëkk ak juróom fekkee nañu bi bile formation ki di ab ivoirien sax mom mi ñuy xamal njariñ li ko formation bi amal. formation yu melni dafa bax ndax day tax ñun jeunes yi mën après buñu paré ci li mën non seulement fexé nuñu taxawalé suñu yëfi bop wayé tamit fexé nuñu ñu former yenen i jeunes suñuy morom ak suñuy rak ñoom it ñu mën a taxawal seen yëfi bopp parce que Afrique mënatuñoo compter fi mu toll ci ñi ci kanam naan nañ xaar emploi nañu xaar ñu jox ñu nañ xaar déedéet ñun ñun ñoo war a dem wuti. plateforme internationale des réseaux jeunesse francophone ñu naan ko PIRJEF ànd ak agence nationale pour la promotion de l' emploi des jeunes di ANPEJ boole nañu seen i kattan ngir gën a mën a dimbale nguur yi ci seen politique liggéey rawatina ci biir francophonie. Ababacar Sadikh Top xam ngeen ni jamono ji ñu ngi ci wàccaayu tabaski waral ba yoon yi xat lool ñi ko xamle mooy dawalkat yi ndax te lu ci ëpp ci ñoom dañuy jànkonteel ay embouteillage yu jéggi dayo waral ba ñeen ci ñoom sax di yokk njëg li rawatina ñi di taximaan yi jàpp ni seen gasoil lañ ci ñàkk ñu ci ëpp ci ñoom sax am yeneen yoon yi ñu fàq ngir daw loole di embouteillage yi ñu jàpp ni capitalu Sénégal dafa bëri ay oto ñu ànd ceeg Fatou Bintou Diagne daw biir ndakaaru njaay euh, nekk na lu ëlëb bopp ñi nga xamante ne ñooy dawal oto ndax embouteillage yi waaye tamit feetu tabaski bii di ñëw mbir mi dafa rek gën a doy waar. fi mu nekk nii ah ñun de sonn nañ safari sonn nañ moom. Ah. waaye nag yéen yàlla dolli sutur rek. bett ah. rek gisaa ngi gisoon ni ma ñàkkee tooy xep. Ah. booy damaa ñàkk tooy xep fu mu toll nii tali bi metti na lool xat na fu mu toll nii ak événement bi nii. waaw métti na lool lool lool. dawalkatu taxi bi jàpp ne du yokk ay njëgam waaye day def rek ay déviation. dinaa def déviation. mais dama yokk prix moom wax dëgg yàlla. ci ka man nag musuma yokk prix nag. dëgg yàlla musuma yokk prix quoi. ñu joxoñ leen baaraamu tuuma sëfooru camion bi di wax ni rek Dakar dafa bëri oto. oto yi ñoo bëri. oto yi ñoo bëri Dakar xatul oto yi ñoo bëri benn ku si nekk bëgg nga am sa sagaru oto di ko dawal loolu moo tax te ñëpp ñoo am soxla ci dawal oto mais loolu moo tax.

daw biir Dakar métti lool ba tax dawalkat yi di ñaxtu ndax kat dañuy ñàkk temps bu bëri ci tali bi waaye nag loolu mi ngi dundal ñi nga xamante ne ñoo di marchand ambulant yi ndax kat dañuy daw ci diggante oto yi ngir rek jaay seen nopp marchandise mu nga ci tabaski bi la ñuy desandi ñu ci ëpp ci soxna yi daanaka li leen yitteel bokk na ci li ñuy woowee cheveux naturel ca Sandaga daanaka loolee di cheveu naturel dañ ko fay jaay bu baax a baax ñi ko xam xamle mooy jaaykat yi ñoom soxna yi daanaka euh, jaral na leen sax joxe ci lu toll ñaar fukk junni ngir jot ci loolee di cheveux naturel ñu ànd ceeg aja Anta Dia mu nekk lu xew wala lu ñëpp jël. cheveux naturel nekk li xale yi jigéen ñi tàmmu ngir waajal tabaski. jigéen ñi ñu ci ëpp dañuy laaj cheveux yi nag day varié fekkee da nga bëgg bu baax na cheveux bu baax moom mënul yomb cheveux bu baax lay commencé cent mille jusqu'à cent dix mille quatre waaw bu baax ay trente mille vingt cinq mille moom du cheveux vraiment et am nañ fi ay coffret cheveux yoo xam ne dafa am closure ci biir donc quarante cinq mille cinquante cinq mille nga ni nga am cheveux. su ñenn ñi jàppee ni cheveux naturel moo ëpp njëriñ ndax dafay yàgg. ñeneen ñi ne du moom rek mooy greffage bi gën. ba mën nga ko jënd tey nga teg ko tegaat ko teg ko tegaat te sëñ boo ko tegee tey benn yoon boo ko tegee da koy sànni moo tax bokkul bokkul daal loolu lan tax ñu taamu sa ba nekk bu baax. greffage ay yekki greffage yu baax ay noomi du sëfa mais um, maanaam daal qualité bu baax la moom sëfa yóbbu la daal maanaam. waaw gerpaak yu baax la waaw. alors tey jii mais est-ce que tamit ci mënti doon xale bu jigéen bi ñaawlu na xaalis bu bëri buñ ci yàq lépp rek ngir taaru. pour man jigéen waroo nekk fii di naan yaa ngi teg ay greffage yu cher ba mu jaral la ngay dugg ci lu kenn xamul di def ay euh, naka sudul noonu parce que ñu bëri dañuy jël. Euh, dañuy jël euh, seen xaalisu wala ñu mu jaral leen ñuy def ay loo xamante ni du suñu culture moo amuñu ko euh, ni ma ko mën a tënkee rek mooy nit da ngay simple nit ku lay bëgg na la bëggee ci ni nga ni nga nekkee parce que ñu bëri buñ koy def tamit pour neex yeneen yeneen ñi la wala pour neex góor ñi. Euh, somme biñ ciy somme biñ ciy dépensé mën nañ koo dépensé feneen foo xamante ne ni lu ci bopp. tabaski doon feetu jullit bi nga xam ne Sénégal dañu ciy dépensé lu bëri. rawatina jigéen ñii nga xam ne seen bébët yëpp mooy taaru ci bés bi cheveux naturel doon na ci nag jumtuwaay bu am solo lool. Adja Anta jamono ji ñu nekk ci wàccaayu tabaski daanaka marché yi bëri na nit lool waral ba ñenn ñi ci sambabo yi daanaka ci la ñu profité ngir sàcc ñenn ci commerçant yeeg clients yi waral ba ca marché HLM ñu ci ëpp ci jaaykat yee clients yi di ñu xamal naka la ñooñu di sàcc di def ngir yoot seeni pochette ak ya ca aju ñu ànd ceeg Aïssatou Diop Tall

place bi day bëri nit xam nga mënoo xool clientèle ni ñuy bëri te ku nit ku nekk xamoo jikkoom xamoo tamit li mu gëm. pour ñu xeex sàcc yooyu ci magasin yi wala ci yeneen bërëb yi ñuy jaaye ñi nga xamante ni ñooy jaaykat yi nag ñi ci am tuuti xaalis nag dañuy jël ay caméra de surveillance def ko seeni biir place waaye ñeneen ñi nag ñoom li ñuy def mooy travail d'équipe ngir mën a surveiller seeni bërëb yi ñuy jaayee. xanaa surveillance rek laaj. keroog tamit jàpp nañ fi benn sa acc bi dañ ko bàyyi ba mu dugal affaire bi si saagam dem yoonam si lañ ko jàppee dañ ko gis bàyyi ko ci biir si caméra bi. ay nit ñooy surveillé ñooy ñii ñëpp. ñii di client yi ak jaaykat yi ku ci nekk ci ñoom ñii di sàcc yi te ñu bëri ne ay jigéen lañ jaaxal nañ leen loolu tax na ba fii ci marché HLM nag alaaji ji ñu gën a wóolu ga Adja ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal tabaski Aïssatou Diop Tall ñu wax lu ñeel wàllu tàggat yaram benn ponk la ñu jagleel ko Casa Sport am njiit lu bees di ab entraîneur di wuyoo ci turu Athanase Tendeng ut fa kii di Demba Ramata Ndiaye mi ñu dàq ci bopp équipe boobee ginnaaw ba Casa Sport laje match coupe du Sénégal di final bi digganteem ak ñaari tali ñu jàpp ni kii di Athanase Tendeng bokk na ci ñu gën a xam club bi waral ñu teg ko ci bopp euh, maanaam équipe boobee di Casa Sport ki ko xam ne di président

Casa attanu ko bu entraîneur laajee Casa Sport 3 millions même bu ñu ko bëggoon jël tamit ñu bëri ñu ngi doon naqarlu li nga xam ne mooy Casa Sport ba fu ñuy wax ak yéen tàmbaleegul préparation saison bi ñu dëgmal waa si Ziguinchor di am yaakaar nii ak ñëw entraîneur bu bees bi équipe bi dina tàmbalee entraînement yi Atanas Tende nag li koy xaar bari na. mu ngoog Athanase Tendeng di euh, coach bu ka euh, Casa Sport mbokki xibaar yi Frank laay na ci ngoon gi ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi di ci jaajëfal technicien ci àndaloon ci kanam tuuti yemoo ko juróom ñetti waxtu kii di day Aram Touré dina dikk ak yéen jox leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu leen di ñaanal euh, guddeeg jàmm bu ànd ak tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam Sunshine Event et Dixon TV Productions présentent MHD à Dakar. Ce samedi 17 septembre, à 18h, on fait le move au Monument de la Renaissance Africaine. Le prince de l'Afro-Trap, MHD, à Dakar, pour un show son et lumière à vous couper le souffle. Prévente 5000 francs, jour J 10 000 francs. VIP 15 000, jour J 20 000 francs disponible au 77 336 32 80 ou au 70 358 85 25 et sur ticket